waaye mën ne ci ci ci noyyi sëñ bi boo ko yëgee soo ko yëgul jëfal na la kon tey ku yàlla boole ci boppam da nga jéem a ñëw wala nga jéem a ñaan wala nga jéem cee def benn effort boo xam ne xam nañ li jëm sëñ bi tax ndax sëñ bi laat dong daa taxaw wax ni li nu am ku ko am da koy fonk da koy jàpp ndax kenn ku bokk nu bokkul sëñ Tuubaa amoo ko ñu ne ko lool mooy lan mu ni aw chef fii daare ne maa yee saahu békkoon ni yax la ko maa yee koo xam ne ka nga féetal balaa dara neex yàlla da koo neex bala ko daraa neex daa neex yàlla ko am kooku mënatoo kooku bokkul amut loola surtout les si sahal ilahi wala ilah jarsafu ma sisu bilaa durin wala kon euh, bis boobu sëñ Blaat moo ni ci daan yee man dëkk na ma moom ñaar fukki at ak ñaar màggal si naa Tuubaa gi mun ma dellu Tuubaa beleel mooy Sénégal yow ca fajar fekk na ma fa yëkkatim xar jox ma ak ñaari junni ma téye ko ba màggal jàll ma dellu si waat jox ko ko mu ne ma loo ci jublu ma ne ko daal la ko jox de mu ne la leer ne maa la ko jëkk jox maa la ko jëkk a defee de daa bëgg foo ko soxlaate rek am ko loolu tax ma jox la ko waaye tey fii ma taxaw bu ma soxloon gëlim sama téléphone bi laay téléphoné kenn du ma ne kañ gay fay ci kenn du ñëw di ma fay si loolu Cheikh Blaat Mbacke moo ko def ci man sama magit di aslum dañ ko tudd xabaabal ku bëgg lu bari lañ ko lañ ko tuddee woon ci daara ji eh, sëñ Blaat danaa wax ne Cheikh eh, Mbacke Gueye suñu jógee di wëri tool yi su ma sañoon tool Cheikh Fall Touré wala tool tool aslum laa jëkk a dugg ndax tool boobu yooyu ñaar tool ba ma ci jëkk a gis rek benn dootu naqari ci man benn tool dootu ñaaw ci man waaw kon eh, sëriñ si nii ngeen def ci jubluwoon ci dara lu may siiwal mbirum ku siiw sëñ bi laa siiw na ba noppi da ko bëgg doolee siiwal ci siiw na ba noppi baax na ba noppi da ngeen ko bëgg ba ngeen bëgg a baax ci baaxam ga moo tax ngeen def lii ngeen def waaw loolu lépp dañoo dëgmal loo xam ne lii amul njariñ dajale alal denc alal ca ko xamul bis bi ngi lay dence waroo denc soxla su ñëw def ko ca ko xamul kañ lañ koy denc warta denc dara lu ñëw na ko ca def loolu nag alal lañu dëgmal rek wute alal rek la ñu dëgmal ak it am ñoo xam ne dañoo nuru ay taalibe ci biir ca duñu dara jàng nañu xasida ba xam ci dara jàng nañu xoraan ba xam ci dara di wëlbatiku di dawee gone di leen dugal ci lu gënut ak lu warut ak lu borom dëkk bi bëggul ak lu mu santeewul ci dëkk bi looloo réeral gone waaye daxaat ax maaruma yaa toole képp ku réer dana yàgg jooy waaw ndax eh, eh, li wér ca eh, mooy koo xam ni ki sëñ Blaat nee na fi jóge fi ci la wax jëriñu la jëriñoo woo ko déggoo ko keneen ku mën a waxit du na noona rek na noona rek kon war na noo doole góorgóor nun tayal ba sëñ Touba yi sëñ Touba ngi woon fii ci ci wetu ko sëñ Abdou Khadir gi lañ ko defaloon téeñum ngeer saa yi taw guy guy gële ca lañ ko yóbbu nguróoñoon ko ko mu dugg caaki téeram ba tayoo ba se mu del siwaat fii ceytutun tey nun lenu am ci dëkk bi di fi gan am ko Sëriñ Tuubaa amu ko foon kenn ku ne boo tabaxee benn pante do ca nangoo sañ ne ne raaxuma ko soo raaxee ne péréguma soo pérégee ne benn ko Sëriñ amu foon loola ca nun la ko fi bàyyi loon kon bu ñu ci jotee war na nañoo tàmbalee sant ca loola man fa ma dëkkoon di nduureen ginaar laaraa def ñu di ma reetaan tey màggal bala màggalis juróom-ñett nag daa ko defee di Serigne Touba ce kenn du ma ni indi dërëm kenn du ma ni maa la saaxali waaw oto bee nga seen 406 be mooy sama juróom-ñeenti oto ci lu ma jënd ab sambare yi wax ma di jënd oto ca lépp nag dann sëñ blaat rek sama ndey liggéey ko sama baay gërëm ma ko saab Serigne gërëm ma ko rek moo ma ko may kon am na loo xam ne lii bilam bàkkaar yoo xam ne jaamu yàlla du ko faj liggéeyal waaju baax moo koy dindi am bàkkaar yoo xam ne def lu def jaamu yàlla rek du du raaf bàkkaar booba de borom waaju liggéey ba waaju baax mu gën a la mooy mooy far bàkkaar yooya moo koy far waaw la ca des mooy nanu delloo góor góorlu ndax sëñ Muntaxa di ngeen ko bëkk démb dafa wax ni moom dëkk bi ñu yàq ñoo fi ñëw di yàq ñoo fi nekk di yàq waaye ñi fi neen defar ba tey ñu ngi fiy defar waaye ku fi defar da nga defar ku fi yàq yàq tey ak ëllëg sëñ Sidi Moxtaar ni ku ku yarul dana yor dara ku yorewul du yor dara ku ku ku amuti teggin du tegg dara jëf yi ngeen di ci dëkk bi sëñ Tuubaa bëgg ko am na loraange waaye ñamuy dal mooy ña koy def ci ñooñu la jëm dee leen sol sol gu dëppoo ak jumaa yi dee sol sol gu dëppoo ak jàkk yi dinaa sawar a wax ci sama turando moom lañ ma tuddee directement maay sama taw papa mu tuddee ma ko vraiment wax dëgg fa yàlla Abdoulahat Joxumpa la waaw sang bi moom wax dëgg fa yàlla ñu ngi sant ah, wax dëgg fa yàlla bien vrai que jikko yu ñu sàcc moom sax taxul mu bëri mais lu ndaw liñ ci forogus néew mi ngi ñuy jëriñ ci àdduna loolu moom macha allah ko dëggu géeg vraiment jub géeg yooyu noonu yëpp moom ñu ngi ciy sant suñu borom loolu moom xaw nañ cee forogus néew sa moom la ñuy doxee nag mu ngi ñuy aar ci àdduna nag ñu ngi ciy sant yàlla ci loolu. waaw lu ñu war a roy sax boo xoolee moom contexte bi mu fi fekkoon. ak fi mu fekkoon ci murit fi mu nekkoon wax dëgg fa il a travaillé ardemment quoi wax dëgg fa il a rendu un grand service au mouridisme quand même xam nga wax dëgg fa la loolu moom gën na dëgëral yoon bi gën nañoo xiir ci lu baax gën ñoo bëgguloo suñ bopp sa wax dëgg contexte bu ci nekk xam na aaya bi mu ciy convoqué sa da ciy adapté wu wax dëgg loolu moom ñu ngi sant bu baax suñ boroom quoi bi ñu seddee ku mel ne kooku waaw waaw waaw waaw waaw waaw très bien loolu moom surtout nag surtout surtout loolu moom war na cee gën a nit ñi bokk surtout ñi bokk ci yoon bi war nañ cee gën a mën a jàngee ci moom loolu moom doonul jouer au détour pour parler li mu xalaat ak li mu war li nga xam ne mooy dëgg d'ailleurs sax ci biir yi waxam boo ko déggee bu daan wax ak jëflante ak ñitu wax ak ñoom ba pare sant leen gërëm leen mais après da gis ne moom vraiment li ci gën a amal njariñ moom mooy digganteem ak ñi mu kii nii quoi yoon yi sa ñooñu moom bu koy woote moom ñi képp kuy nekk ci yoonu eh, eh, diine moom la lay kii nii quoi moom la ci boo boo ñoom ñëpp waa mbokk jullit yi mbokk taalibe yi moom pratiquement wax dëgg fa yàlla wax ju rafet la daan wax nag discours boo xam ne c'est bien articulé point par point ñi mu war a waxal mu wax ak ñun bu paree am ñu ci ber ñi nga xam ne ñoo bokk yoon bi même ci biir taalibe yi nii sax dana woon ne taalibe yi yoon bi bi ñu bi ñu fiy ñëw ak ñoom ñëpp yéen a tax ci biir ku ci nekk da lay jox sa cër li nga warloo ak yow da la ko jox ba mat sëkk. wax dëgg fa yàlla. moom maanaam maanaam moom jàngal nañu ba pare maa ñun nag lu ñu war a def moom mooy maanaam royu sëñ sëñ Abdoulaat. waaw man Muntaxa laa tudd Muntaxa waaw damaa ñëwoon siyaare si bi xam ne murid yëpp amee nañ ko njukkal di ñaan yàlla suñu borom dolli koy leer ak njabootu Serigne Touba gi mu nekkal fii yëpp di ñaan ñu fekk ko ay déwén déwén Cheikh Abdou kenn amul fayam ndax lu bari moo ko dindi ci dëkk bi. ndaw yi tamit bu ne bu ñuy sol yenn col yi ci bari ci moom lañ ko royee kon dañ koy doolee ñaanal ak njabootu Sëriñ Tuubaa gépp yàlla doole ay leeram taas ci barke di leen sant bu baax ci liggéey bi ngeen def am na solo ndax dëkk bi moom sàmmante war may dëkk bi rek mooy li nga xam ne moo war ñëpp ndaw yi sama moroom yi maa ngi leen koy digal kenn ku rek ñu sax ci ndigal yi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg suñ ko defee rek incha allahu taala dañ jot ngërëmu sëñ bi te nuñ ko mën a defee rek mooy sàmmanteeg teggin yi ak njariñ yi di leen sant bu baax di leen ñaanal télé bi yàlla def ko eh, mu jëkk ca kaw a kaw ci barke Cheikh Abdoulaye Mbacke